إلى ثرثارة إلى ثرثارة إلى ثرثارة قد قصدوا سيارتي فارق دارني ñu ngi nuyu ñëpp di leen xam ne tey ñoo ngi fii ci Sarsara ci gaaw bi liggéey bi bëgg a tàmbali lii itam mooy ndugg mi nga xam ne sëñ bi duggul na ko muy pomme terre bi ak soble si ak euh, ndugg mu seen war a àndal fi ne nii itam mën naa ne waañu mag bi ñoom commencé nañ liggéey am na ñoo xam ne commencé nañ xolli ñi ci des itam incha allah ñëw ak yenn waañ yi nga xam ne leen lu ne dafa war dem commencé nañ seetli bi oto bi chargé nañu pour yóbbu ci yenn waañ yi ñi ci des itam nag incha allah fas yéene balaa suba daal lépp luy am dugg des na ko dana dem fa dem liggéey bi tàmbali su ko defee bu ñu xëy na fekk li ñu war a xool lépp xool nañ ko commencé jublu ci togg yi nga xam ne lu mu yeex yeex suba ci 4 incha allah fekk lépp pare ñoo mën a dem ndugg mi itam camion bi Touba la demoon dugge fa fii mooy wetu euh, soble si boo jëmee nële fa la pomme bi nekk boo ñëmee fii itam mooy euh, vermicelle yi ak macaroni bi ak kaani gi ak euh, nawe bi lii mooy laaj ji ak gar bi ak couscous bi fii boo fa jëmee petit pois bi la fële boo fa jëmee mooy dawlin bi wante leen lu ne rek incha allah dañ koo ber nga xam ne suñu àggee ci tool def lu na bi ba xam nañ waañ wu la war a nga xam ne moom daanaka dañu topp kayit bi rek incha allah ci fas yéene ba ñu tëdd lépp luy am dugg dana dem fa war dem nga xam ne bu ñu xëyee ci liggéey bi lañu daal jublu loolu daal ci gàcceel sëñ Seck mooy liggéeyu Sarsara bi lii itam nag di ñaan yàgg ko def bu baax a baax a baax ndax sëriñ Kosso moo ko woon def ba 1998 mu jóge fi fi jóge itam sëñ Kara jël leng yi commencé ko 98 ba ñu ngi ci 2019 kon mi ngi seetee naanam ni ko suñ Kara jiite rek mat na ñaar fukki ñaar ci at mu nekk rek liñ jën day gën a yokk kon ci sant bu baax di ñaan tam yàlla maye kàttan bañ def ko téeméeri at ak lu topp ba sët yi di ko def doom yi di ko def jërë ngeen jëf ca mën naa tam bis bi boo ko xoolee day ñaari bis yoo xam ne yi ñaari xew-xew yoo xam ne benn bis la ndax benn bi ndogu la yoo xam ne sëriñ Modou Awa Balla moo ko joxoon euh, Serigne Kosso moo koy def ca bis bi mu ko def itam dafa fekk ne sëñ bi dafa génn àdduna ci ñaar fan ci weeru koor ñaar ak juróom ñëw tombeek ñaanu tombeek ndog yi nga xam ne moom la def di itam ñaanu ko euh, tombeek gi kon mën naa ne def ndogu di def togg ay ndogu di yóbbul sëñ bi ni ko sëñ Maodo ni ko yóbbule sëñ Modou Awa Balla tombeek itam sëñ Kosso Astou Lo kon loolu moo waral euh, xew-xew bi man naa ne ñaari xew-xew ya ci benn bis ndax loolu tam bu ñu seetee tari eh, tarix day sëñ moo daaw balla moo waxoon kooson sëñ kooson naka na nga fokk fonk ñaar fukki fan juróom-ñaar ndax ñaar fukki fan ak juróom ci koor mooy sa bis kon moo tombeek ñaan gi loolu mooy waral eh, ndogu sarsaara yi ci sëñ kiraa fonk ko lool ndax day faral di wax ne ma ku may lebal na ma ci lebal ku may fay na ma ci fay te yaakaar naa ne weer bi mu teroo ba léegi sëñ bi toogut fu ne ma nga fay dem ak ñëw rek ndax bëgg bis bi yemb ca incha allah itam yaakaar naa lépp lu nduggoom fi ne yemb na lépp lu jëm ci ndawal gi itam yemb na kon def ko rek moo togg ki moo des yóbbu ko ca fas nañu yéene incha allah bu rek ci 4 heures daan départ fi yóbbu ko ci sëriñ Moustapha sa départ ñëwaat ci itam ci Sarsara ndogoo fi def conférence suñ wax naa ak taalibe yi bañ xëy suba alterné dem bayti gu mag ziyaare maam Thierno suñ moo dem sëñ Moustapha Absa mu ñu ñu soog a dem bayti gu bayti ca armeel ya siyaare sëñ koso asuloo sëriñ bi waxtaan ak taalibe itam foofa dénk tere leen dénk leen ñu dellusiwaat sar saram def conclusion ñu soog a joxante rendez-vous boo déwén donc ñaan tam nag li nga xam ne ay xasaayit la ay kaamil ñu fi wàcc la yàlla jotale ko sëñ Modou Ball ak sëñ Koso mi nga xam ne ñu war nañu bés bi ak ñëpp ñu fa way dawlu yi maanaam ñi ko doon àndal ñu ñu fi des tam yàlla dabb nu kàttan bañ def ko at yu baree baree bari lool tam lañ ñaan ci gàttal di sant bu baax a baax di ñaan teewe ko at yu bari jërë ngeen jëf rajim bisimilahi rahmaani rahim léegi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bi nu may ñu fekkwaat bis bu tedd bu sell bi di bisub sëriñ Koso Mbacke Astou Lo di sant sëriñ Modou Kara Koso Mbacke Astou Lo xalifa sëriñ Koso mu jiite liggéey bi te dara yàquwul di ko ñaanal gudd fan ko ànd ak wér te xew li bari ak donge ak taalibe yi di leen xamal ne ñoo ngi ci liggéey bi commencé nañ ko ñu ngi ci xolli pomme de bi ñoo ngi ci sable bi ñoo ngi séddale ndugu mi te liggéey bu rafet bi nga xamante ni sëriñ Modou Kara ko taxaw ginnaaw sëriñ Koso Mbacke asuloo ànd koog jëruñu mag yëpp te dara yàquwul waaw xan at mu jot luñ ci gis rek bu dee benn bu déwénee du di gis fukkam te loolu lépp fu moo ko lay taay ak bëgg baayam ak bëgg sëriñ Koso ak bëgg njabootu sëriñ Koso ak bëgg sëriñam Cheikh Mamadou Moustapha moo tax tey lépp rafet jëruñu yaa ngi nii ñoom sëñ Bàcci Gueye sëñ Mass Fall Alaaji Fall ñoom Njaga Fall gars yi kenn di manqué ak dong yëpp ak sëriñ Bachir Ngom taaliba sëñ Bachir Asuloo nga xam ne kër sëñ Kosta ak sëñ Bas lépp benn benn kër la kon nag dongo yi daayira yi ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di soññ ci liggéey bi ngeen ñëw jàpp ci ni mu gën a rafete ñu ànd ak sëriñ bi suba balaa 4 heures ndog yi pare ñu yóbbu ko jébbal ko sëriñ Moustapha sëñ Modou Kara Kosso dellusiwaat Sarsara recevoir ay ganam ñu dem ci base bi continuer liggéey bi si baaxub yàlla ak yonante bi ak sëriñ Touba di ci soññ daayira ma faatu bisri soppee sëriñ Kosso yi nga xam ne ñoo yor taxawaayu wàllu base yi ak organisation bi nga ñoo ko yore di jiital si nuyoo boobu sëriñ Gora Gueye alaaji sëriñ Sall sëriñ Massar Fall ñoom ñu ngi leen di soññ daayira ma faatu bisri ngeen ñëw ci bis bi taxawul ndog yi dañ ko doon taxaw démb ak barki démb dara bañ a kon nag ñu ngi soñ ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ bi nag gudd fan gu ànd ak wér xéwal yi ànd ak jàmm ba liggéey bi mu liggéey ko ni ko doon liggéeye ba yóbbu ko ci sëriñam sangam Cheikh Mamadou Moustapha ci kàttan suñu borom mu ñaanal taali bi ñu fekk ko déwén yu bari ci barke Xaadim Rasul yàlla nañ def lépp eggal ko ci jàmm ci barke sëriñ Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf ila sarsara ila sarsara إلى سرسار قد خسدوا سيارتي فارق دارني أو زارا